ak sëriñ bi lay won nañ koy jëfee ba mu ba mu leer ci nga xam ba mu leer ci say cër say cër xam nañ ko war a jëfee benn mënu ci ñàkk kee taxaw ay pharmacien bi kii taxaw taxawaayu médecin bi waaye nag jaxase ñaar yooyu nag ak ñàkk koo ràññat nag e, bokk indi na fi jafe-jafe yu bari ci àdduna bi ndax bu dee boroom xam-xam bi la mën a indi mooy li ñuy tudde théorie la mën a andil bu dee soofiyu bi soofiyu dëggantaan bi nañ koy tatbiix la leen nañ koy jëfandikoo pratique bi la leen moo tax fokk ñu xàmmee ñaar ñooñu ku ci ne rôle ba mu war a jouer pour jox ko ndax diggante xam nag ak jëfe man dig mu gudd fi nekk ndax jullit yépp danañ xamandoo ni islaam moom lu baax lépp ngi ci biir jullit yépp danañ maase xam ni dëgg gi yonent bi andi mooy dëgg bi gën a dëggu ci dëgg yi waaye nag lay seen jafe-jafe mooy fan lañuy jaar ba jëfe ko ci jamono biin toll jamono biin toll nga xam ne noonu diine yi ñoo téye àdduna bi yor xam-xam bi yor alal ji yor lépp nga xam ne mën nañoo sakk bunt yëpp ba mu des benn boo xam ni diine daf la ko woon ni la bunt bi képp ci nga mën a jaar mbaa doo jaar léegi moo tax xam gi mën naa nekk waaye fu ñuy jaar pour jëfe ko nag jafe-jafe foofu la nekk te li leen gën a ñorit mooy di xool adduna mel ni dañu leen dénk adduna ñu di ko di xool ba xam kan moo jubloo yëkkati waat islam ci caaxaanu bañ jël seeni ngànnaay dem jàmmarloo ak kooku yi nga xamante ne moo jubloo yëkkati islam ndax ñoom bëgguñu jóg bu demee noonu nag jullit bi mënta ñàkk ci ak yeewute lu toll ni mu seet ndax doole ji mu ngi ci loxo yee ak am xel ak yeewte képp ci nga mën a dox ba taxaw li nga bëgg a taxaw Sëriñ Tuuba suñu borom may ko ci ñawuk xel loo xam dafa wax ne zaka u xaq lii zaka u xaq lii saara na ba mel ni ak wax waaye yëmmale ci boppam sax dafa mel ni àgg na ci ne zaka u xaq lil Mustafa anaara qalba ñëwug xelug yonent bi leeral na xolub murit bi ba mu leer nañ moo tax mu taxawal li mu bëgg a taxawal te ci kanam yi noonu la ko taxawale muy taxaw ba muy taxaw ba noppi te yëguñ li mu ngi taxaw muy li mu bëgg a taxawal lépp taxawal na ko bañ xam ne taxaw na te yëguñ ne li li mu doon taxawal taxaw na loolu ak ak ñaw lay teg kon sëriñ bi ñëw xel ko gi moo xam ne sunu ne ko jëfandikoowu ko ngir contre benn jullit jëfandikoowu ko ngir pexe àdduna waaye daf koy jëfandikoo ngir ngir kéefar daanu mu taxawal islaam te te te te te xaddu dam foofu la jëfandikoo ñëw ñëw xel googu mu wax naka noonu foofu la bëggee murid yi jëfandikoo fa seen ñëw xel bu ñu ko jëfandikoo ci lijjanti àdduna buñ ko jëfandikoo ci xeex akub jullit waaye nañ ko jëfandikoo ci xeex kéefër taxawal diine taxawal islaam moo tax li gën a tegtale loolu mooy jamono bi tubaab yi ngànnaay yi gën di faral di yor ñaare mooy ñaari ngànnaay yi ñuy wax xupp ak xëpp bu la xuppee xupp xupp xupp benn centimètre dañuy natt ba xam ndax buñ ñu la xëppee da nga dëppam dit sëriñ bi biñ jéemee ci moom it yëpp yëpp yëpp yëpp mënuñ ci moom dara dañoo mujj eh, dugg ak moom ci côté jéem koo ger ba xam ba wax ko ne ko dañoo bëggoon léegi <clears throat> mboolem Afrique gii yow képp ñu may la autorisation nga sañ fee taxawal diine di ko fi woote ku ko bëgg a woote ku ne yaa koy may autorisation mbaa du jàll ñun wax ni sëñ bi dañoo wax ak ñenn ci mag ñu ne ko alool ah, kii daa mel ni baax sëñ bi ni kooka man de li ma gis li ma gis bokkut ak li nga gis ne ko damaa gis ne dañ ma doon xeex ngir diine léegi ñu bëgg maa jël xeexe ma diine doon def ma jaar si ji ñuy xeexe diine ba tax na loolu daf ko gàntal bañ ko waxee ne ko sëñ sa waa kër lañ a xam mun leen képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sama waa kër ne ko xanaa loolu kon kooku mooy ku noonu kon xamoo ko ndax nit du seet la mu bëgg mu di ko bañ te liñ bëgg lépp muy ngi ci mi daje na ci moom moo tax sëriñ sëriñ Sonia daan wax ni sëriñ bi buñ ko ma masaan wax ni ko waa barab sàngam dañ daa bañ danaan ndaxam bañuñ ma dañ maa xamut loolu lay daan teg ndaxam bañuñ ma dañ maa xamut waaw mooy ni léegi kon ak umpale képp la maa doon waaye bañ gi mënut nekk kon bu ñuy waxtaanee tasawuf ak Serigne Touba lañ ci jëkk indi rek mooy li Serigne Touba yaatale yoonu yàlla nim xame xamee yoonu yàlla ni yaatoo ak ni mu ko nangoo sëriñ bi dafa wax ne at turuqul muusilatu ila llahi taala ala adadi anfasil xalaayiq yoon yi yóbbu nit yàlla toll na ni nooy mbindee fi daal waaye nag wa aqrabuha ilallahi al adabul mardi waaye nag bi ci gën a jege yàlla mooy ay ab yar yar yar bu rafet yar buñ gërëm mooy bi gën a jege yàlla ci yoon yooyu daa cee teg ne ak tasawufu kulluhu adabul tasawuf ba ba tasawuf jeex lépp ay ab yar la nga xam ni kon kële gën a xam ab moo la gën a xam tasawuf kële gën a yaru moo moo la gën a tasawufe safaan bi it mooy safaan ba rek nag moo tax kon murid yi mi ngi leen tànnal yoon bi gën a jege yàlla muy ab yar daan wax ni sama mbir defuma ko ci julli yu bari defuma ko ci kor yu bari defuma ko ci wérdu yu bari ndax fu ma ko defoon rek am na ñu leen ko dàq waaye ci pas-pas laa ko def pas-pas nag mooy li nga xam ne kenn mënu ko jabutu kenn mënu ko nangoo ci kenn di ko di ko di ko di ko jël te amoo ko boo xasee am nag am nga ko ci nga bokk ci pas-pas pas suñ boroom am ñaari melo yoo xam ni buñ doon xool melo yi yàlla yépp